alaikum les amis internautes nous sommes venus du Amad di Diakalogien Fitch 13 TV avec une émission en mode vacances Nous restons toujours sur Belgique ndax avons ñu jëlee Modou Tambédou jël Aline Badara Ndour tey ñu ngi ak euh, le jeune international bien sûr euh, Moussa Ndiaye moom kenn dootu ko présenter, le jeune joueur euh, prodige sénégalais qui évolue à Anderlecht mu le club boo xam ne nii kenn présenté sur le plan mondial Beaucoup de ci ñeenti club yi a rëy Belgique donc Moussa Ndiaye moom la dalal lañ formé en Aspire je pense oui Aspire mu nekk benn centre de formation bu nekk euh, jàmbaar ñoom ñoo ko formé laata muy dem euh, Barcelone euh, ba rejoindre Belgique donc Moussa Ndiaye si mode vacances ñu bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet yi. waaw waaw salaamaaleykum maa leen nuyu leen nuyu internet yëpp xam nga leen nuyu yu aussi quoi parce que yombul nga jógee sori ñëw fii pour def interview aussi maa ngi leen di ziar di ziar ñuy seetaan aussi quoi.

du na bàyyi nga nelaw journée bi yëpp quoi <laughs> des fois ñëw yéela na nañ dem fii te par force lay doon quoi donc euh, ça va quoi ñu ngi koy passé bien quand même. mais j'espère que am ngeen benn régime d'entraînement parce que bu ngeen ñëwee aussi du nelaw ak seetu mbokk yi kese parce que bu ngeen demee championnat Belgique euh, ku ko xam-xam ni championnat bu metti la mm. bokk na ci championnat yu gën a compétitif euh, donc entraînement yi régime d'entraînement yi. waaw waaw waaw parce que doo ñëw tamit vacances rek toog quoi Belgique comme ni nga ko waxee c'est dur ah hein. surtout préparation yi day métti trop quoi. parce que soo pensé à ça doo nelaw kase aussi di nga vacances mais après les derniers temps yooyu fii dese après da koy def entraînement boo xam ne da ngay maintien rek quoi. pas entraînement bu trop dur mais boo xam ne da lay maintien boo demee fee doo doo benn sonn bi quoi waaw. dañ donc balaa ñuy ñëw ci euh, ren si sa performance dañuy def retour un peu si sa formation nga jógee euh, Aspire mu nekk sant formation bu nga xam ne mi ngi nekk biir jàmbaar Aspire na ko ko xool xam ni sant euh, formation boo xam ni c'est reconnu jàmbaar dëgg moo fay dugg nan lañ la recruter ak nan la nan lañ la repérer foofu. waaye te si mun naa ne fii la woon sax esaat amul bari. benn mu waroon jàngi mais damaa daw jàng sax loolu <laughs> waaye parce que dama doon dem jàngi après ma romb groupe di dem di demee sat après ma laajte ni ma test aspire la après ci laa retourné bàyyi samay bagage jël samay dàll dem foofu te ba ma demee bari woon nit aussi quoi mais la fin dama noonu damay retourné dem jàngi mais ba ma xoolee heure bi après mu nekk ay 9 heures yooyu ma ne ah bàyyi ma toog ko rek quoi parce que dem daw naa ba pare te 9 heures munoo dem doo demee doo dugg quoi. ma toog fa après 16h laa mujjee def test yi. ba ma defee test yi après ñu jël ma foofu. 9h ba 16h yaa ngi toog foofu. parce que dafa bëriwoon nit quoi bëriwoon nit trop quoi équipe day génn équipe du après ma dem Mbour foofu ñu boole fa Sénégambia meilleur joueur Sénégambia yi région bu nekk quoi après ñu joué foofu ñu génnaal meilleur 3 quoi 3 yoo xam ne ñoom ñooy représenté Sénégambia. Mhm. ak yeneen dëkk yi Ghana ñu tasee Aspire fee ak Amérique du Sud yooyu. Mhm. seen dëkk yi foofu. après ñu demaat fofu gëndal fa 18 jours équipe waaw ñu def fofu après bobu bobu ngay duggé intégré Aspire Academy mais ba nga waré jangi ñu dem euh, assister ci euh, test yi ñu jël la ba nga ñëw lan nga wax seen wa keur parce que tamit souvent parents yi fi dañu daan jang nga daw jang ñu dem pour test yi yalla def nga réussir ba nga ñëw lan nga wax parents yi. xam nga bobu sama papa mom ñëk gën en fait léegi mom ñëk gën génn bamu ñëw après bobu ma ngi mo ngi ma ngi préparer doon jangi quoi. après si la ma woowee téléphone non si la si la dañ ma jëlee aspire foofu test yi ñu woo sama papa téléphone ne sa doom jël nañ ko Moussa quoi mu ne leen bam Moussa parce que Moussa mu ngi doon doon jàngi mu ne noonu après ñu jox ma ko ma ne ko mu jox ma jàngi damaa def test yi quoi affaire yooyu. après ba ñëwee mooy loolu moo ñëwee si kër ga ma ànd ñoom ñu ñëw toog ak paa bi yooyu waxtaan trouver solution affaire yooyu quoi après mu ne ma comme lii nga choisir mooy dinañ la ci jàppale. waaw dafa nga jaaree bàyyi jàng. waaye mun naa fa parce que continuer naa après un mois. après boobu nag xam nga ak préparation di waajal dem Qatar bi day métti ko mhm. donc ma mujjee obligé arrêté def ko sacrifice boo xam ne xaw ma ba xam nañ ma jël mais sacrifice lay nekk boo xam ne nga koy def sa life quoi benn yoon. ma def ko après dem defi test yi ñëw trois mois après ñu woo ma ne ma dangay intégré biir Aspire Academy. kon bañ jëlee danga dem Qatar après. waaw bu ñu jëlee fii dañoo dem Mbour Mbour tamit dafa fa test final Sénégambia. pour ñu jëlaat meilleur troisième. Hmm. après ñu demaat as euh, fële aspir bu nekk Qatar. Mhm. foofu foofu am na ay Amérique du Sud ay yooyu quoi muy dëkk kii ak Ghana affaire yooyu yenn dëkk Afrique yi quoi defaat foofu test ñu génnewaat foofu 18 équipe quoi après boobu ñoom ñooy représenté beneen kii génération buy dugg aspir quoi 18 joueurs. 18 jours donc gis ngeen ko donc affaire yi metti won na ci moom ñëwul rek euh, nekk pro donc dafa jaar ci li nga xam ne moom mooy test ku xawal test yi nag xam ne souvent test yi y a des milliers de personnes donc moom aussi euh, mu sacrifier euh, boppam dem ñu jël ko ci test yi mu ñëw nekk aspire aspire nga def fa ñaata at. aspire def naa fa 4 ans et demi quoi. def naa fa 4 ans et demi. def fa 4 ans après laa demee Barcelone.

Mm-hmm. aussi aussi dañuy dem di voyager ay Alcace di ay mic Espagne di dem ñëw moo tax niveau bi day xaw a élevé quoi mm-hmm. moo tax jour yu bari foofu mun naa ne niveau bu ñuy gagné aspire quoi lay doon autre chose boo xam boo Europe doo sonn non. noonu. c'est vrai boo Europe doo sonn donc euh, aspire euh, nekk l'équipe bu nekk bon pas équipe mais joué au championnat parce que boo xoolee euh, fu ay tournois ngeen di joué ay tournois internationaux nga ñëw directement dem Barcelone Barcelone nag nekk équipe bu mag a mag a ci Espagne mu ba mu aussi sa contrat ñu bëri aussi ñu ngi ko doon wax naan pourquoi le choix du Barça est-ce que Barça aussi xawul retarder un peu sa carrière. waaw am na ñu ko doon wax dafa retardé sama carrière affaire yooyu mais pour man c' est pas ça quoi parce que sama première année pro la woon xam nga c' était normal ma dem Barcelone pour gagner waat foofu temps expérience et eh, tout mooy loolu c' est vrai mun na retardé mais man jàppee ma ko loolu quoi en fait dama dem pour continuer sama formation Barcelone parce que top <laughs> top équipe la parce que joueurs yi kii yëpp bu ñu seen dem Barcelone en fait mais dama dem foofu xam nga continuer sama formation. xam nga un an ans après ma parce que gis naa si loo xam ne dernière année bi may jugee foofu boobu maa ngi def préparation ak ñoom ma joué ñaari match amicale ak équipe première bi après commande xaw ma commande si coach bi bëggoon na ma ko en fait mais après dañ ko viré dañ ko viré si la suñu benn coach bi ñëw foofu remplacé ba Savi ñëw quoi après yenn problème bi commencé parce que ñom dañuy indal seen i yo xamna benen ne latéral gauche donc day nek quatre latéral gauche te fofu sofa fa mu nek boy c'est vrai def naa formation de le fa deux ans c'était le temps ma génn fofu xam nga dem jeu ji ailleurs quoi pour gagner temps parce que soo fa toogee day quatre même routine. Ouais c'est ça. sa intégration bir euh, Barça ba ngay door ñew mu nek équipe bu nek au top euh, ya ko wax léegi donc nga nek jeune joueur ñew fa sa intégration est ce que yomboon na aussi ak langue bi. ouais ouais Ouais c'était c'était un peu difficile avec espagnol bi quoi. xam nga bokul ak fee xam nga fee sen espagnol mom day gën yéme té ñu ci bari catalan la wax affaire yooyu ya, mais man sama anglais mom mom ci guidé quoi parce que aspire anglais lañ doon lañ doon wax quoi mais anglais bob mom guiné ba suma démé équipe suma waxul fo français anglais bi laay utiliser quoi motax duma son wa sonn mon quoi bo ñëwee deer première une semaine deux semaines après c'était pas facile quoi mo blessé cheville léegi ba ma blessé ce vie nak après c'est la génn am 3 mois 4 mois ba waaw ba quatre mois yooyu cinq mois fekk après instant boobu mënu moon jouer si équipe B bi quoi si laa ñëwee si juvénile bi parce que boobu maa ngi ak sama 18 ans je pense mënoon naa si U19 bi après ma jouer année boobu deuxième année ma ñëw dugg si équipe B bi ko quoi après dernière année bu may kii moo def préparation équipe A bi après moment donné ma jugee foofu dem àndal rek bu ñu waxee tuuti si retard parce que dañuy des foofu tuuti euh, ci équipe A bi parce que euh, sa convocation foofu noonu da gars yi dañu doon wax Moussa amul compétition lu bëri na jógee Barça mi ngi ci équipe B bi bon yaa ngi wax léegi bi foofu am na niveau ñu ngi euh, compétition bi aussi beneen affaire la mais boo gisee gars yi doon wax retard bi parce que da nga fa yàgg xam nga tey ñu bëri ñu ngi la doon séntu si yenn club yu mag yi te amaana xëy na pour moment bu boo fa nekkoon xam nga xam nga football tamit xam nga patience des fois parce que ba may dem assure boobu booy laa woon a fait ba may dem Barça tamit booy la foon xam nga gis gisuma danger boo xam ne mënoon naa dem foofu kon sama formation benn deux ans bien vrai que sa gars ñi yu mag yi des fois xam nga football daa am daa am yoon quoi parce que des fois mu nga ñëw benn def benn step boo xam ne da ngay bloqué foofu quoi. te xale moom football quoi football match yu bari tout moo la indi et Barça bee ba amul le niveau quand joué à bon parce que ñi ko xamul mun nañu ko wax mais am na secondaire foofu ñëpp niveau équipe yeneen équipe yi nekk si yeneen division Ouais, parce que beaucoup cette année de qui fait un niveau quoi espagnol. Ouais, à affaire quoi. D'après moi, c'est Barcelone, c'est pas un regret pour moi parce que benen formation là wax nako jouer championnat Sénégal aspire centre de formation ça Barça nek benen niveau ci mom mu équipe B mais nek équipe qui xamné ni euh da jouer euh, ay championnat. Donc il nek aussi euh, benen niveau permettre nako aussi euh, tay mu mature sur le plan footballistique sur le plan tactique nek défenseur de métier. Moussa défenseur nga mësa joué. non man nekkoon défenseur nag en fait parce que Aspire des fois ñu ngi ma jëlee excentré excentré dañ ma doon kii quoi excentré ak milieu terrain tas yi ba ñu ñëwee dañ ma gis ma si ñu jël ma après tubaab bi ñëwaat dugal ma si milieu terrain bi ñu may awante si ñaari quoi milieu terrain bi ak excentré milieu terrain excentré léegi ba ñëwee ba Mbour ba Mbour après dañ dañoo dañ doon def test yi ñu joué ma joué milieu terrain far nag équipe 11 bi ñu génnee parce que amoon na cinq 11 xaw ma 4 11 boo xam ne mu ngi woon si test yi fële Mbour léegi premier 11 nag boobu mooy première bi gars yi choisir xam foofu dugg ci biir xam nga Gambie mooy loolu. aussi léegi après axe bi gaañu woon quoi axe gauche bi dafa mujj woon gaañu mais man amoon naa benn taille boo xam ne mënoon naa gérer foofu kii bi quoi léegi ba ma demee si la ma tubaab bi woowee ne ma arriéral parce que kii dafa gaañu affaire yooyu. léegi eh, yàlla nag fu may nattoo mu dem foofu jouer après def match boo xam ne mooy loolu waaye après nag tubaab bi ñoom ñu taxaw waxtaan seen biir ñu jouer beneen match ñu tegaat ma foofu même chose aussi affaire nag di continuer ba ma dugg aspire duggee fa ak central nag léegi ba demee aspire après ñu mënoon kii latéral gauche ak central latéral gauche ak central après ay yoon coach Saliou moom moo mënoon def latéral gauche ak central Saliou Dia waaye moo mënoon def latéral gauche ak central après ba ma demee ba boobu si la demee équipe nationale commencé nag ji ak central bi foofu la commencé. waaw waaw. ak central bi après di dem di dem ba nii quoi affaire bi yegg fa fee. central bu ngeen xoolee joué na excentré joué na latéral joué ak central donc polyvalence boobu noonu tey moo tax ba nga ñëwee Anderlecht euh, je pense euh, di jouer latéral gauche euh, donc joueur day nekk polyvalent parfois dañ lay teg fu nekk parce que dina toll mois yoo xam ne équipe dina am ñoo xam dañuy nekk poste bi blessé donc bu ñu la xoolee xam ne tu es polyvalent dañ lay xëcc teg la fee donc loolu moo ko dar ak son nouveau club nga ñu ñëw tuuti si Anderlecht nga ñëw signé foofu jóge Barça ñëw fa directement ren nag seen début mu nekk début yu xaw a metti ba ren ngeen terminé dixième si classement bi Ouais, c'était pas facile parce que ba ñuy doog a ñëw dèjà équipe bi xam nga rek des fois li nga dal ci coach yoo xam ne mooy loolu quoi équipe bi du demee noonu mais après benn course course bu nekk ak sa mentalité benn course ba mu ñëwee des fois entraînement yoo xam ne yu gën a dur affaire yooyu yoo xam ne saa da ngay jéem sax course bi quoi après nag deuxième kii bi quoi section bi lañ commencé def ay performance yoo xam ne. li ñu raté woon quoi di ko jéem rattrapé affaire yooyu. souvent day métti parfois yenn match yoo xam ne boo ko raté parce que Zulte il paraît que doon na leen aussi arrêté tout actuellement mi ngi mi ngi wàcc en deuxième division. ouais tu vois tu vois loolu moo ko fële quoi championnat en fait des fois da ngay jouer équipe boo xam ne tu vois tu sais que xam nga waaw mais <laughs> xam nga doo comprendre quoi loolu moo ko championnat yi quoi en fait championnat yi football championnat loolu moo ko da ngay ñëw après def say performance def gagné équipe boo xam ne moo ñëpp a ngi koy wax. après nga ñëwaat benn équipe gagné la facilement tu peux comprendre loolu moo tax quoi comme genre mun naa jox exemple contre kan euh, Villarreal. waaw Villarreal ah Villarreal. yéen a ko dóoroon ah. ñoo ko dóoroon euh, qualification mm-hmm. euh, après ñu ñëw beneen équipe di ñuy gagné facilement en fait mais doo comprendre en fait. Mm-hmm. doo comprendre parce que nii dañu naan yéen kenn xam seen équipe bi nan la quoi tey da ngeen di def match beneen yoon mais football la ko en fait. football Anderlecht euh, nek équipe bo xamné ni fait partie des quatre grands clubs euh, en Belgique euh, nga ñëw fa mu terminer dixième nan la la def ci yow parce que jour bu tay da fay bëgg au moins jël trophée wala champion benn championnat ben ben benn trophée au moins. oui c'était pas facile mais tuur nañu nag mais tuur trop trop sax oui parce que dañoo dañoo liggéey ci France tu vois xam nga dañoo liggéey liggéey boo xam après course bi tu vois da ngay sentir que ki course bi da la gëna bëgg match yi tu vois daf lay pousser à bout entraînement yi dur xam nga am nga gis ñi am na envie gagné benn trophée en fait mais après bañ gagné bañ perte conférence league bi contre AZ après boobu la gars yi perte confiance parce que dañuy match yi mënoon nañ dem peut-être play-off mais après dañoo def marché nul je pense ou bien dañoo perte match bi loolu lañ perte championnat bi jël dixième après mala boobu topp ñu nag ba léegi nii <laughs> top leen ba léegi ba nga door a ñëw tu es titulaire nga doon jëpp euh, bon je pense que dernier match tu es titulaire indiscutable mais est-ce que au début. si si dama ñëw en fait dama ñëw dama ñëw premier match parce que ba may ñëw foofu dama blessé woon en fait après ma def deux semaines yoo xam ne entraînement la individuel après dugg si groupe bi. peut-être ma tombé ak U23 am match quoi ñu woo ma ñu ne ma est-ce que bëgg nga jouer si U23 pour gagner minute balaa nga ñëw ma ne si ma ne si si après ma jouer si U23 yi 3 match xaw ma deux matchs xaw ma trois matchs après ma dem si équipe première bi après sama premier match maa ngi sama premier match maa ngi ko joué contre West Ham contre West Ham lañ ko joué Conference League après ma commencé titulaire foofu après ñu ñëwaat équipe bi commencé amaat problème changement yi affaire yooyu après dernier moment ñëwaat commencé waat titulaire aat xam football moom mooy demee des fois course yi am ak mooy loolu quoi mais ça a été différence championnat yi nga jógee Barça ak Belgique ban différence euh, nga gis entre Espagne ak euh, ak Belgique. ouais c'est c'est pas c'est pas facile et c'est pas même chose aussi mu naax quoi parce que fait am nga fait moom championnat bi day day métti quoi équipe yi teg bal bien et tout donc la Belgique ça va mooy lol mais fait c'est un peu difficile que Belgique Belgique aussi mettre trop parce que match a équipe yu mag a fa nekk hein. pas facile mooy loolu ouais donc mu nek coupe du monde bi aussi euh, Ismaïla Jacob ñu écarté ko par raison administrative wala jour boobu tombeek nga don attaque jabar coïncidence la wala dañuy ñëw lool ci Moussa parce que bon defoon na ben benn déclic bu rëy hein. ah mu tombee xam nga nga takk jabar ba si ngoon euh, ñu convoqué la en équipe nationale lan la defoon ci yow ak lan nga yëgoon aussi soxna ci quand même. Ouais, ouais, ouais. loolu mu naa ni am ñu naan ay lay la ci quoi parce que mais j'étais content quand même parce que. nga def nga tak jabar après ngon gi ñu wolo nos nationale sa fi ki gusus parce que journée ba fête lay do na fait ci yow mais en fait mu yu mako célébrer bu ki parce que à minuit dama jël vol dama <laughs> soxna ci nan nan lako nan lako dundé nga nga tak soxna parce que bon bëggoon na xéna peut être passé ak yow guddi gi nga dem mom aussi lan lay parce que euh ñu bari ñu ngi nan aussi tamit euh, daf la porter chance euh, ci loolu ah, ouais ouais mu nga ni porter chance la mun man mun nako ko en fait parce que après ba ba ba ba ñu woo daf maa woo daf maa demandé question ma ne ko si dañ maa woo après moom parce que dafa dafa ñëw ba fii dafa ñëwaat ba fii jour ma ne ko yow wut fii affaire yooyu après ma comprendre ko après dafa kiiwaat après ñibbaat ak famem ñëw fii avec cug yooyu après si la si la jëlee vol après dem ko si guddi gi quoi. moment boobu aussi qu'est-ce que tu as ressenti. Euh, xam nga nit moom ñun ñi moom ñëpp di football yooyu. xam nga ki lañuy loolu la loolu la xaar quoi après loolu ñaan dem booy xeexal sa dëkk en fait surtout grand grand kii yi ay coupe du monde ak yooyu xam nga c'est pas facile quoi. mais buñ la ko boo ko amee ça sera quelque chose boo xam ne day marqué sa vie quoi coupe du monde parce que ñëpp moom la ñuy ñaan c'est suñu rêve la en fait donc j'étais content et tout le monde était content mooy loolu quoi. élimination aussi euh, ñu dem euh, je pense en quart de finale Sénégal ñu éliminé ko bu jógee si coupe d'afrique afrique jël trophée bi ñeu coupe du monde ñu tel ñu éliminé moment euh groupe bi lan ngeen yëgoon ak pour yow lan mo nekkoon problème ak euh, suñu élimination bi. waaw ah, métti woon ñun parce que ñun bu soyoon dañuy dañuy gagner Angleterre en fait parce que Zori yi nañ motivation bo xamné ne mënoon naa même bu Angleterre keneen équipe dañ koy gagner mais xam nga football mo démé non quoi des fois di nga bëgg gagner équipe B, tamit day bëgg gagner xam nga. Angleterre mënuñu woon sur le plan footballistique boo xoolee jeu bi beneen niveau la woon. 15 minutes la ñu joué anglais taxaw di xool di natt jeu bi ñëw si milieu terrain bi làmb mu nooy après gars yi commencé bës mu métti woon trop si ñun surtout si côté flanc yi. waaw waaw mais c' est pas c' est pas même chose parce que mën naa ni Angleterre seen équipe ñu fa nekk nekkul question de kii ñi ñu gëm nañ suñu bopp mais bokkul quoi joueurs fa nekk mën naa ni si grand championnat yi dañu nekk trois grands championnats boo génnee fa la ñuy joué en fait. Eh, ñun aussi mun naa suñu joueurs ñu ngi jeex grand championnat mais bokkul en am nañ niveau boo xam ne amoon nañ niveau boo xam ne mun nañoo gagné Angleterre mais xam nga football moo demee noonu quoi des fois da ngay ñëw équipe yoxosu la parce que ñun même moment si commencé def nañ en temps bu baax am nañ fay occasion yoo xam ne mu ñu ko dugaloon peut-être mun na doon beneen match lay nekk quoi mais xam nga rek lu yàlla tudd. maaleykum c'est Djibril Ndiaye ñu gën ma xam si Djibril Orems wala Djibril bu Moussa Ndiaye ou aussi nga ne la Moussa Lone maa ngi quoi. waaw man ma géré compte Moussa Ndiaye yu bëri yi nekk ci internet bi TikTok Instagram wala Facebook waaw. Euh, non yombul moom yombul parce que di nga recevoir ay message yu bëri parce que xam nga rek moom nit ñi dañ koo bëgg di nga jot ay genre message yu nekk. des fois aussi mënul ñàkk di nga jot ay messages yoom dalay metti mais doo tontu daal dangay xam ni yow yaa ànd ak koo xam ni yàllaa ko may tur quoi da jéem a gérer loolu waaw mais yombul nag. Euh, non man moom su ma jotee message rek dama koy jox quoi moom da si jot direct waaw moom da si jot direct parce que dafa message yoom ne mënoo koo téye foo nga yegg ko moom da siy jot direct quoi moom waaw. waaw Moussa c'est quelqu'un boo xam ne nit bu nite la ah nit yomb na waaye nitee jafe moom nit bu nite la loolu yombul quoi koo xam ne yow boo ñëwee vacance xool noon na dem feneen jël fa appartement wala genre yooyu noonu mais ay ami d'enfance lay àndal ñu mu doon fowal démb comme ni ma ko yàgg waxee rek ñooñu lay àndal ba léegi amul dara lu ci changé ñu ñu ñu ko doon fekkal démb ba léegi ñooñu lay àndal changé wu ci dara changé wu ci dara dafa quoi. parce que éducation bi papa ma gam yaayam ko yéré motax mënul changer succès yegu ci dara tamit aussi ah. mom mom mom mo ngi ci lancer bu baax mom fowul kenn du na ko jógal dem entraînement xamna lim wara def bu baax doful sax mom xamna ni ñu nekk ci ginnaawam dañ koy xaar dañu am ci ci mom yaakar parce que dañu raflé won jour quoi ñun way dañu raflé won comme professionnel ñu am ko mom kon mom doful du ko caaxaanee vingt ans la am ans matagul sax. kon jarul muy yàkkamti dara na entraîné concentré wu waaw xam li ko war daal xam lu ci des moom ñun ñoo ngi ci ginnaaw dinañ ko gérer waaw fan si club baa ngi ci ginnaaw team Moussa Ndiaye bi gars yi ñu dara Facebook bi ñoom ñooy publier TikTok bi ñoom ñooy publier gars yi ñoo ngi gérer daal ñoom moom daal entraînement lañ ko sant bu digee ci terrain mu def fulaak fayda bu jeexee jeex na te moom du nitu réseaux sociaux quoi naka gars yi noonu tamit benn instant xam naa dina ñu koy envoyé message. duñ jot réponse mais mom duñ réseaux sociaux moom bo xolé sax page Instagram bo duggé bu mu nekké ci terrain wala entraînement rek lay posté wala bu fa nekké rarement lay nekk ay Instagram yoy naka gaay comprendre nelaw gi mo upp dafa bëgg nelaw nelaw rek lay def wa luñ koy tek na dé metti nak da am lu ko war inshallah allah man limay wax rek Ballon d'Or 2026 Afrique non fa mu duggé jaway inshallah Ballon dama ko gëm dama dama kaa xam quoi dama xam qualité yu nekk ci mom lu nekk ci mom yewagul sax day nelaw ba léegi ni billahi non da kay yé sax doful par dañu wara dem coupe d'afrique dem jëliko coupe du monde 2026 bi ni du yomb mais mu naa tam ñu yëkëti ko hein ah, avec Moussa Ndiaye mom lepp lu mu laal rek or lay doon quoi mom waaw jaajëf waalé donc nan ngay préparer sa bopp parce que y a d'autres compétitions aussi ñu kanam coupe d'afrique ba ngi ñëw coupe du monde aussi en 2026 en tant que joueur jeune joueur remplissez-les trop surtout si côté poste latéral, défenseur, gars yi di gën a ñëw di gën a wane seen nan ngay préparer sa bop, sa vision. Oui, comme comme toujours hein parce que nous, nous ngi des di quoi c'est ça en fait parce que nous bu entraîner et ça bi préparation yi dina leen day day xaw a tout et aussi nous ngi pare pour nous défendre l'équipe euh, nationale quoi tu vois mais loolu xam nga ay performance et d'être top moo la si moo la si dugal en fait doo ñëw ba benn jour boo xam ne da ngay tëdd na la ñu woo si équipe nationale bi mooy loolu. voilà c'est ça donc entraînement rek ak liggéey quoi moo la si yóbbu donc ñu ngi koy def di toog di xaar eh, le moment venu dinañ ñu gis incha allah. moment venu dinañ leen gis euh, sa année prochaine aussi ak sa saison ren ngeen terminer dixième ndax ngay préparer sa saison prochaine. ça sera pas facile parce que déjà ba ñuy dem gars yi ñuy menacé quoi. waaye ah nañu retour bi moom ça sera pas facile parce que dina tar trop quoi. mooy loolu moo tax sa dernier jour boo su nekkee xam nga loolu la ngay pensé wu quoi moo tax doo toog boo toogee tuuti sax da ngay bëgg a dem dem dawi quoi c'est ça en mais ça va quoi parce que loolu rey ñu lu yokk ko yokk la ñuy def en fait quoi mooy loolu mais ñu ngi koy pare quoi. bu baax alors tey Moussa Ndiaye la ñu dalal nekk le jeune. Euh, inter le le jeune joueur international euh, sénégalais euh, ngeen parcours am euh, jàmbaar Barcelone Belgique donc mu nek joueur bo xam tay ken kenn ko présenter hein nek un très grand défenseur mon défenseur bu mag mag la bo xolé ni muy joué nga xam c'est est un joueur très technique tactique aussi plan méthode bi muy jouer da ngay xam ne joueur la bo xam tay bu gën a préparé boppam tay war na mën a bokk si défenseurs yu gëna a mag sur le plan mondial donc dañuy remercier aussi nga xam ne moom mooy bu sport borom grande marque hein donc mom c'est est ami des joueurs moo ñu facilité aussi invitation bi ak euh, Moussa Ndiaye ñu koy remercier bu baax a baax bu sport sa gaañ laaw. waaw sama gaañ bu baax non baax la sama gaañ la sama grand la. oui borom baax la bu baax maa ngi koy bëggee di ziar quoi. ñu bàyyi la nga tàgg tàggatoo aussi euh, mbokk internet yi. waaw waaw maa ngi leen di delloo ziar aussi ah, di leen wax merci beaucoup xam nga xam ñun moom nii la quoi bu ñëwee vacances xam nga gars yi fa ñu xam si lu ñu nekk et tout xam gis des fois quoi yaa ngi seeti gars waaw maa ngi seeti gars yi maa ngi seeti gars yi xam nga di yi di dem leen nuyu xam nga mais pas tout le temps xam nga temps bi moom des fois xam nga faa nga toog di am yow kii coaché quoi <laughs> oui mais maa la leen di ziare ñëpp ah di merci beaucoup xam nga di remercier aussi quoi parce que c'est pas facile quoi mooy loolu jaajëf. jaajëfal bu baax a baax gars yi ni lañ koy defee donc euh, mode vacances ah dañ koy continuer euh, gars yi ñu ngi ñëw boo gisee dañu tegle jël trois joueurs yoo xam ne dañu jógee Belgique parce que c'est seen championnat yi jeex na si ñi nga xam ne ñooy jouer play off rek euh, ñoo fa des jël nañ Modou du Aline Badara Ndour tey ñu ngi ak l' international Moussa Ndiaye on va continuer sur cette lancée bu leen fàtte aussi abonner si suñu page YouTube 13 TV mais aussi cliquer sur la cloche de notification pour avoir aussi nos vidéos mais aussi l'émission émission sa foot chaque week-end aussi nous sommes stade pour faire pour couvrir les grande affiche ah muy nekk match yu mag mag donc dañ leen jox rendez-vous à très bientôt merci les gars ñu ngi leen di jaajëf bu baax merci Moussa dila la ñaanal aussi euh, sa carrière ah nga ñu gën la dégg fu sore sore en équipe nationale ci sa club aussi merci ñu ngi lay jaajëf bu baax merci